déggu leen ci ñu ne Safinou Amar def na nangam teggin yu ndaw yii di eh, jëfandikoo Moussa Camara mooy wax si micro bi moo tax Moussa Camara lii lépp te déggu leen benn fitna bu Safinou Amar ma sa def loolee ni koy defee danaa ci ñëw waaye ñu xam ne football lu sëriñ bi tere la ci dëkk bi waaw waaw Touba sëñ Mountakha moo tax li jàpp ci ay ballon toll na ci deux mille six cent quarante et un ballon jàpp na ay kànnaar yoo xamante ni ay sëriñu tariyaax ñoo ko doon jëfandikoo. ah kànnaar yaa ngi takk ay jigéen kànnaar yaa ngi. ñaari junniy ballon ak juróom benn téeméer ak ñeent. non du ñuy dem ndànk-ndànk nag. sëñ bi bëggul ngeen football sport baaxul Touba. football dawal velo ak yenn affaires yi sëriñ si bëggul kenn de sport biir Touba parce que gars yi am doole su ñu amee doole du wóor. voilà bon léegi katana yi katana yi gën a leen njabarkat yi lépp eh xewee nag Touba la xewee nañ déglu rek voilà noo neeti Moussa Camara ko waxati dégg ngeen de voilà moom sëñ bi ne bu kenn football Touba waaw comme boog suñu futur El Hadj moom ah du jóge Touba wala futur Sadio Mané futur Sadio Mané moom. dañ ko xooli ji feneen fu dul Touba waaw parce que Touba su ngeen amee doole du baax su ngeen muusee tamit du baax. ak benn ay tamit jàpp nañ ci. waaw ah. juróom-ñeent fukk ak ñett 93. waaw ah. kànnaar yoo xam ne ci sëriñi tariyaax lañ ko jàppee. Ah. ndax loolu tamit bu ñu fàtte ne sëñ Mountakha këyit bi mu xaatimoon waxoon na ñi nga xamante ni bi. oh la Laden Ben Laden da ngay laaj ay laaj yoo lay saaga de. sëñ bi bëggul ku football ci dëkkam waaye joueur yi suñu ñëwee siyaar suñu bàyyi ya dagan na de ñoom ñoom gëraawul de bëggunu ayda Diallo ayda Diallo andi ay xéewalam dagan na nu góor jigéen góor jigéen andi limousine dagan na bëggunu footballeur footballeur ñëw siyaar si dari di andi xaalis gëraawul dagan na woyaa yooyu on va continuer waaye sama ñuuxuti kaa lay waay ay sëriñ njabar lañ nañ génn dëkk bi ndax dëkk bi du dëkkam njabaram looloo tax ñu jàpp ci loolu col lu mel ni bodi ak i robb yoo xamante ne bii euh, ñi koy sol tamit nañ koy sole dafa dëpp wuta war may dëkk bi jàpp nañ ci deux mille deux cent cinquante cinq ñaari junni ak ñaar téeméer ak juróom fukk eh, sanse sanse sanse non sañse sëñ sëñ bi nee na dëkk bi Touba kenn du fa sañse surtout maa jigéen ñi borom bodi yi bàyyi greffage yeeg affaire yu nice nice sol yooyu mooy loolu de seen bii kër yi la yem moom seen soxna yi moom garaawul waaw seen soxna yi rek a wala jé